الحمد لله الذي قال في كتابه العزيز إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والصلاة والسلام على الذي قال وإن قال فقد صدق baynal muslimi wal kufri talku salaat ginnaaw bi ñu santee yàlla sunu borom subhaanahu wa taala yàlla mi nga xamante ni moo bind képp koo xamante ni yaa ngi ci aalam bi muy nit wala muy rab wala muy jamaadaat yépp yàlla mi nga xamante ni moo leen bokk yilif ci nguuram yàlla mi nga xamante ni moo leen bokk yor ci wërsëgam yàlla mi nga xamante ni bu ñu xëyee ñépp ci moom la ñuy jublu nga xamante ni huwa samat moom yàlla moo xajoo lépp mu àttal lépp yàlla sunu boroom subhaanahu wa ñu ngi koy sant bu baax ci xéewal yi nga xamante ni moom lañu defal di xéewal yoo xamante ni xéewal yu am solo la nga xamante ni tey buñ ko doon compter duñ fi jóg ndax le fait que jaam bi yàlla may ko mu yeewu yeewu waale sagoom ñi nga njaboote nga xamante ni ku ci taxaw nga taxaw yàlla may leen ñu yeewu yeewwaale seen sago yàlla moom war nga koo sant moo tax jàmm bi bu xëyee lu mu war a njëkk a def julli ndax bu ñu xëyee dañuy ñaan yàlla dox ci sunuy soxla uti wërsëg ñaan yàlla yàlla may ñu wér ñu mën a uti wërsëg yàlla moom nga xamante ni nag moo yor yooyu su la mayee wér bala nga motti wërsëg balaa ngay def da ngay moom balaa ngay jóg da ngay moom balaa ngay génn fexeel jubóog moom te jubóog moom weesul mooy nga jullil ko julli bi nga xamante ni moom la yeyoo mbokk yi seen émission kalimatul quran nga xamante ni ñu ngi koy defee fii ci télévision RTT ah ñu ngi leen di ziyaar bu baax di leen déwénati di leen baalu àq di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla boole jéggal suñu waxtaanu tey dañ ko indi ci ñi nga xamante ki nga xamante ni moom lañu jiite ci julli ñan ñoo royo topp ci julli ak ñi nga xamante ni royu ñoo topp ndax suruutu sixati salaatil ma'muum xamsatun suruutu sixati salaatil ma'muum xamsatun sunu waxtaanu tey dañ ko tënk ci sart yi nga xamante ne mooy wéral kiy roy imaam pour julleem mën a wér ñu ni sart yooyu juróom la bi ci njëkk mooy al awwal bi ci njëkk ci sart yooyu al iqtidaau wa huwa an yanwi annahu ma'mumun bil imaami wa anna salaatuhu taabiatun li salaatihi fa in taabaahu min gayri niyatin batalat salaatuhu bi ci njëkk mbokk yi mooy mu yéene ni day roy ci ginnaaw imaam topp ci ginnaaw imaam yéene ni day roy ci ginnaaw imaam bu yéenewul ni day roy ci ginnaaw imaam julleem du mën a wér julleem du mën a wér moo tax ne yéene ni rek day roy ci ginnaaw imaam bi nga xamante ni mooy jiite tàkkusaan bii wala mooy jiite timis bii wala mooy jiite gee bii wala mooy jiite suba gii maa ngi yéene roy ci ginnaaw imaam su ko deful julleeb du wér yéene boobu nag muy yéene roy ci ginnaaw imaam jarul muy tudd turu imaam bi nag waaw jarul muy tudd turam ndax boo tuddee turu imam bi yaa dugal sa bopp ci beneen condition imam bi su demoon ba ci biir julli gi mënta yeggale julli gi keneen di ko yeggale yow sa julli dafay yàqu ñaareelu sart bi an laa yëttama muftaridun bi mu mutanafilin mu bañ a roy ci ginnaaw koo xamante ni mu bañ a roy ci ginnaaw koo xamante ni kooku day naafi la yow bu dee julli farata nga bëgg a julli farata julli farata ngay def waaye ki la jiital moom imaam bi moom naa naafila ñeenti ràkka lay def yow nga julli tisbaar munoo roy ci ginnaawam munoo roy ci ginnaawam kon ki nga xamante ni moom nga mën a roy ci ginnaawam mooy koo xamante ni farata lay julli comme yow moo tax ñaareelu charte bi lu jar a bàyyi xel la moo tax dugg ci jàkka ji rek fekk nit ku ne allahu akbar xamoo lan lay julli rek nga topp ci ginnaawam allahu akbar soo moytu di nga baamu si julli soo moytu di nga baamu si moo tax bu imaam xasee sëlmal koo ñëw di roy ci ginnaawam na la wóor ni ci julli farata googu la nekk bu la wóor ni ci julli farata googu la nekk beral sa julli bopp ndax boo ko toppee mu jékki-jékki sëlmal nga mottali say ràkka mu la man de dama doon naafi la julli mu woon farata dama doon naafi la yow dangay ngay julliwaat de waaw waaw da ngay julliwaat ndax moom ci naafi la nekkoon te yow ci farata nga nekk moo tax jàkka ji boo ñëwee fekk imaam sëlmal koo fekkul julleem waroo topp ci ginnaawam waaw koo fekkul ci ginnaawam bu ko defee ñu xam ne naafila mënta yóbbaale farata naafila mënta yóbbaale farata benn yoon ñetteelu sart bi nga xamante ni mooy tax kii ñi jiite julleem wér mooy an yataxidal fardaani fi zuhriyatin aw xayriha aw xayriha fala yusalli zuhran xalfa asrin wala la aks mooy ki ngay roy ci ginnaawam ngeen bokk farata bi ngeen di julli nga yoroo ci ginnaaw da ngeen war a bokk farata bi ngeen di julli waaw bu dee tusbaar lay julli yow nga julli tusbaar mën na laa yóbbaale bu dee tàkkusaan lay julli yow nga julli tàkkusaan mën na laa yóbbaale bu dee timis lay julli yow nga julli timis mën na laa yóbbaale bu dee gee lay yow nga julli gee mën na laa yóbbaale bu dee suba lay julli yow nga julli suba mën na laa yóbbaale waaye bu dul lii nag mënu yóbbaale ndax nit kuy julli tàkkusaan du yóbbaale kuy fay tusbaar nit kuy julli tàkkusaan du yóbbaale kuy fay tisbaar nit kiy fay tisbaar du yóbbaale kiy julli tàkkusaan ci waxtoom nit kiy fay timis du yóbbaale kiy julli gee kiy julli gee du yóbbaale kuy julli suba mukk moo tax yéen ñaar ñi nga xamante ni yéenay julli ki ñuy jiite moom ki lay jiite na ngeen tolloo même farata bi ngeen di julli waaw bu dee da ngeen di fayandoo tusbaar mën na laa jiite bu dee da ngeen di fayandoo tàkkusaan mën na laa jiite bu dee da ngeen di fayandoo timis mën na laa jiite bu dee da ngeen di fayandoo gee mën na laa jiite wante su dee moom dafa nekk ci waxtu boo xam ne da jooxe ci waxtoom yow ngay fay te li ngay fay euh, waxtoom paase na su boobaa mënu laa yóbbaale même sax bu waxtoom paasewul mënu laa yóbbaale mënu yóbbaale mukk ki nga xam day fay mënta yóbbaale kiy joxe farata ci waxtoom ñeenteel mbokk yi arrabia an yattaxida fi l adaai wal qadaai falaa yusalli zuhran qadaan xalfa man yusallihi adaan wala al aks mooy li ngeen di julli yéen ñaar na nekk lu tolloo waaw na nekk loo xamante ni julli bu tolloo la julli bu tolloo mooy bu dee waa ji tusbaar sax lay julli yow tamit tusbaar ngay julli mais tisbaar bii ñu ngi koy julli tey ci waxtoom yow tusbaar bee da koy fay kii ki kii jooxe waxtu du jiite nga am dafay fay waxtu kii joxe waxtu du jiite dafay fay waxtu waaw moo tax bu dee da fay dangay fay sa waxtu woowu waa jiy joxe nga bàyyi ko mu joxe kii jooxe tamit mënta yóbbaale ki nga xamante ni dafay julli ci wax toom waaw tusbaar tusbaar laay fay wante yaa ngi boo xamante ni yaa ngi ci waxtoom léegi bàyyil ma yóbbaale comme que tusbaar tusbaar la rek déedéet tusbaar bi kay pour nga yóbbaale ko day nekk tusbaar boo xamante ni yéen ñaar da ngeen a nekk ci jooxe waxtu bi yéen ñaar aussi da ngeen a nekk wala yéen ñaar da ngeen a nekk ci fay waxtu bi mu yóbbaale la waaye bu contraire bi amee du la mën a yóbbaale benn yoon. moo tax charte boobu nag mbokk yi charte bu jar bàyyi xel la ndax euh, tusbaar la tusbaar la rek loolu taxul julli bi sotti waaw juróomeel bi mbokk yi lii tax ki la jiite sa jiite bi mu la jiite wér mooy almutaabaatu fil ihram wa salaami falaw ahrama aw salama qabla al aw sawaahuma fihima batalat salaatuhu wa ama gayruha fa yukra mu ni nga topp imaam bi ci kàbbaru armalam topp ko aussi tamit ci sëlmalam sa imaam soo ko njëkkee kàbbar kàbbaru armal sa julli yàqu na soo tolleeg moom kàbbaru armal sa na soo ko njëkkee sëlmal sa julli yàqu na soo tolleeg moom sëlmal sa julli yàqu na waaye bu dul yii nag ci biir julli gi nag dangaa juum njëkk kooru koo dangaa juum njëkk koo sujjóot dangaa juum njëkk kaa siggi dangaa jum njëkkaa toog su boobaa nag sa julli yàqul waaye sip nañu loolu nit ku ko def ak imaamam sip nañu loolu nit ko am moo ko def ak mbokk yi moo tax bu la imaam dee jiite dangay bàyyi xel bu baax ay sëggam ak ay siggéem dangay bàyyi xel bu baax ay am ak ay sujoodam da ngay xay bàyyi xel bu baax kabbaru armalam surtout kabbaru armalam xaaral ba mu ni allahu akbar ba daaneel nga door wax yow allahu akbar bu yàkkamti su dee sëlmal baal ba mu ni allahu ba mu ni assalaamu aleykum yow nga door wax assalaamu barakatuhu moo tax boo amee imaam da topp ci ginnaawam innama ju'ilal imaamu li yu'tama bihi yéen salaa sallam ne ne imaam buñ ko utee ci julli dañ ko faa indi pour ñu topp ko pour ñu roy ko waaye indiwuñ ko pour ñuy tolloog moom ci jull ci ay jëfam wala ñu koy jiitu ci benn jëf li yu'tama bihi na ñëpp topp ci ginnaawam te kenn bañ a wuuteeg moom kenn bañ koo jiitu ci benn jëf kenn tamit bañ a tardeel benn jëf ndax ci ay jëfam la nekk mbokk yi boo bëggee sa julli baax te nga topp ci ginnaaw imaam bi ci njëkk mooy na yéene topp ci ginnaaw imaam bi jaru ngay tudd turam nag ndax boo tuddee turam dugal sa bopp ci beneen atte bul tudd turam amal amal yéene rek am naa yéene topp ci ginnaaw imaam bii di ma jiite waaw amal yéene bu yéene bu wér nga topp ci ginnaawam ñaareel bi mooy ki lay jiite ne la jiite waxtu bi nga xamante ni moom ngay julli waxtu bi nga xam moom ngay julli na la ko jiite te waxtu bi mooy bu dee tusbaar na la jiite tusbaar kii jiite tusbaar kii jiite tàkkusaan mënta yóbbaale kuy julli tusbaar waaw kuy julli tàkkusaan mënta yóbbaale kuy julli tusbaar kuy julli tusbaar mënta yóbbaale kuy julli tàkkusaan waaw an yataxidaa fil fardaani ñaari farata yi nañu nekk benn fara benn waxtu benn farata boo xamante ni moom la ñuy julli bu nekk mukk contraire bu nekkee contraire da ngay julliwaat su julli baaxul ñetteel bi mooy farata boobu na nekk farata bu boo xamante ni bu dee ñaari tàkkusaan la wala ñaari tusbaar nañu nekk fil adaa'i wal qadaa'i nañu yem ci fayoo wala tamit ci jooxe waxtu bi ñuy julli ci waxtoom te kenn fayu ko moo xam ci muxtaar bi wala ci daruur yi mënut yóbbaale waxtu boo xam ne dafa muxtaaram dafa paase daruur yam dafa paase waxtu bi moom bu muxtaaram paase daruur yi xaw a paase kële cee jiite moom tamit day fekk dafa tolloog yow ca loola maanaam la muy julli muxtaaram dafa paase daruur yam paase moo tax mën laa jiite waaye bu dee moom dafa nekk ci muxtaaru tàkkusaan nekk ci ci daruur yi tàkkusaan te yow tàkkusaan bi démb nga ko amee woon kooku mun laa jiite kooku mun laa yóbbaale kooku mun laa yóbbaale ndax tàkkusaanu démb ngay fay waaw kooku qu'importe kooku mun laa yóbbaale waaw kooku mu mun laa yóbbaale bu dee tusbaar bi da koy julli tey teew tusbaaru démb ngay fay kooku mun laa yóbbaale waaw ndax kooku day joxe waxtu bi ci waxtoom wante yow da ngay fay da ngay fay da ngay fay waxtu beneen bi tamit mooy ki nga xamante ni daf lay jiite day nekk koo xamante ni day nekk koo xamante ni euh, doo ko njëkk a kàbbar kàbbaru armal doo ko njëkk a sëlmal ndax soo ko njëkkee kàbbar kàbbaru armal wala nga njëkk koo sëlmal sa julli yàqu na doo ko njëkk a kàbbar kàbbaru armal doo ko njëkk sëlmal boo ci def ñaar yooyu nag su julli yàqu na <coughs> boo tolloog moom sax su julli yàqu na maanaam su ko dee def tombeek nga di ko defandoog moom wala muy sëlmal ni asalaama ngeen waxandoo ko wala ngeen waxandoo allahu akbar sa julli baaxul da nga koy bàyyi ba mu wax ba pare ngay door a wax juróomeeli mbokk yi mooy koo xam ne day naafi la mënta yóbbaale kuy julli farata bu dee ki nga xamante ni moom dafa bëgg mu jiita la ci julli farata la nekk euh, ci julli naafila la nekk mënta yóbbaale farata donte naafila ba ñeenti ràkka la ñaari ràkka la mënta yóbbaale farata loolu moom bokk nañ ci bàyyi xel bu baax li ñuy leeral nag ten bii li ñuy leeral nag mooy ki nga xamante ni moom dafa nekk ci tukki dafay tukki dem foo xamante ne waru faa def ñetti fan mu fekk fa julli am ñu fa dajeel ñoo xamante ni ñoom ci seen dëkk lañ nekk tukki ku nekk mën naa jiite sa moroom waaye sib nañ ko araamul julli ga mën naa wér waaye sib nañ ko waaw su dee day matal ki nga xam ne dafay julli ñeenti ràkk bu dee moo jiite kee bu amee ñaar ràkk tey wàññi na toog xaar imam bi mu def ñetti ñeent ba ni asalaamaaleykum muy door a sëlmal bu mu njëkk a sëlmal imam bi de pare naa sama ñaar rek sëlmal aha boobu baaxul si julli yàqu na boo paree sa ñaar dangay toog xaar ko mu mottali ñaaram ba ne asalaamaaleykum ngay door wax yow tamit asalaamaaleykum bu dee yow nag yaa ko jiite yow mi war a wàññi boo ko jiitee boo mottalee sa ñaar da ngay wax asalaamaaleykum moom nag du wax asalaamaaleykum ndax moom day matal day dem mottali ñaaram dooru ñu wax asalaamaaleykum mën naa nekk julli gu wér la wante nag sip nañ ko maanaam koo xamante ni euh, da nga nekk ci tukki di jiite koo xam xamante nekkul ci tukki ak am nekkul ci tukki jiite koo dafa nekk ci tukki julli bi mën naa wér waaye sib nañ ko sib nañ ko waaw bu ko defee yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax beneen bi mooy jafe-jafe yi ñuy am léeg-léeg benn mbokk sax doon na ko laaj ki nga xamante ni dafa noddu ci jàkka ji nit ñi ñëw di julli si imaam ñëwul te mu mën a jiite te mu mën a jiite ñu ni ko jiiteel mu jiite waaw am ñuy la naan est-ce que loolu dañ koo sib ci ban téere la nekk ah gisaguñ ko boog wala wala jàngaguñ ko comme que jàng dafa néew bariwul sunu xam dafa néew lool li ñu dafa néew waaw ñi nga am ñoom ñoo gën yaatu jàng ah mën nañ koo gis feneen waaw wala tamit ñi koy wax tamit bu ñu indee dalil ba ñu xool ba xam na wala wérul waaye daal gisuñu loolu fenn waaw gisuñu loolu fenn waaw ki noddu daal ki noddu daal moom mën na jiite mën na jiite moom ki noddu bu dee mën na jiite ki noddu bu dee mën na jiite te imam ba newu fa te mu sës fa. mën naa jiite julli waxtu boobu nga xamante ni moom la ñuy julli kenn sibu ko araamul te ñëppay ñëppay am julli ñëppay am julli beneen bi mbokk bi bi mu doon leerlu mooy ki nga xamante ni euh, liqaam waaw liqaam ci julli ki kay ki gën a yay pour def ko mooy kii ki nga xamante ni moom moo noddu waaw ki noddu daal ba nit ñi ñëw kooku daal moo gën a yay ci liqaam ci mbooloo mi yonent sallallahu alayhi waxoon na ko benn saxaaba ba mu noddee ñëw ñu war a julli am keneen ku liqaama mu ne ko ki nga xamante ni moo nodd moo gën a yey ci liqaam kon nañu bàyyi ki nodd di liqaam kon ki noddu moom moo gën a yey ci liqaam donte nag keneen mën naa liqaam ci jàkka ji du yàq dara ci julli bi du yokku dara ci julli bi waaye daal ki noddu ba nit ñi ñëw daal kooku moo gën a yey ci liqaam mbokk yi ci wàllu julli gi su ko defee tabaarakallaahu ah, xam naa ni ah, waxtaan bi xaw na gàtt lool wante julli la moo mel noonu ku nekk ak jafe-jafeem su ko defee dañuy laal point yooyu rek ñi nga xamante ni waxtaan bi am nañ ci loo xamante ne xëy na dëppoo dëppoowuñoo ñun ci xalaat wala ci xam-xam mën nañ ñoo jokk ci numéro bi 77 792 41 91 xam naa sunu technicien bi dina ko def ci ci ci ci ci ci écran bi ñëpp di ko gis euh, wala ki amaat laaj boo xamante ne xëy na laaj bi ko intéressé la ci julli mën nañu jokkoo. ci 77 792 41 91 bu defee kemtalaay sunu xam-xam kemtalaay sunu dégg-dégg ñu wax ci lu ñu mën def ci lu ñu mën ci kon salaa salaam suñu sañoon nag mbokk yëpp jotal seen i yóbbante seen i question waaw suñu sañoon mbokk yëpp yóbbante seen i question ci wàllu julli su ko defee ñu gën ci mën a farañ fàccee loo xamante ni xëy na dina gën a am solo nii nga xamante ni moom la ñu waxtaanee numéro bi nañ ko def ci écran bi bu ko defee ñëpp bàyyi xel seen mbokku Daara Ibrahima Ndiaye moo leen doon présenté émission bi yàlla na yàlla barkeel yàlla na yàlla defal ñuy dégg topp ñu ñi doon wax ni yàlla na yàlla defal ñu wér yàlla yàlla defal ñu fasaaxa yàlla yàlla defal ñu ñëpp yéen bu rafet ci barkatu salaa salaam lépp lu ñu julli yàlla nañ ko yàlla nongul ci barkatu salaa salaam suñu ñaw téef yàlla nañ ko yàlla baal yàlla jéggal ñu ko te suturaal ñu ko àdduna suturaal ñu ko alaxira ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa ñi nga xamante ni tabaarakallahu dañu nekk ci loxo yoon te nekk ci jafe-jafe yàlla na yàlla dimbali leen xettal leen ba ñu génn ci ci ci ci ci fañ leen tëj mën a delluwaat ci njaboot yi ci barke yonent bi salaa salaam ñi nekk ci xat-xat yàlla na yàlla jàppale leen ñi nekk ci tiis yàlla na yàlla jàppale leen ñi feebar yàlla yàlla wéral leen ñi faatu yàlla yàlla yërëm leen te yàlla oyofal suuf seen kaw yàlla jéggaleen seen bakkaar yàlla yàlla xare leen àjjana ci barke salaa salaam xale yi nga xamante ne ñoo toll ci examen yàlla na yàlla jàppale leen ñiy def euh, euh, BFM yàlla na yàlla jàppale leen ñi doon def entrant yàlla na yàlla jàppale leen ñi def baguette yàlla na yàlla jàppale leen beneen diplôme bu waaye di yóotu yàlla na la ko yàlla yombal te mu barkeel ci barkeel salaa salaam in uridtu ila al islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba annaar rabbana la tuzi qulubana bada id hadana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu في روضة الرسول جلوس